di defee seen réunion ak promoteurs yi. waaw dugg nañu ci biir saal bi sax parce que dañ ñoo woo mais après xam nga moom njuumte bu xasee am rek toujours maa dafay répété wu rek parce que nit waruloo woo ay nit ba xàmme woo ñi nga woo ak ñi nga woowul waaw ak ñi nga war a tawoo xam nga loolu euh, déjà daa am lu muy wone yow képp ko yow boo amee daje tey mu nekk yooyu mu nekk daje boo xamante ne daa am ñu mu concerné ak ñu mu concerné wul war nga def le tout ba képp ku mu concerné nga woo ko képp ku mu concerné wul mu bañ a sax euh, dugg wala mu bañ a bokk waaw mais nag am daje euh, nekk structure boo xamante ne ci wàllu administration la ñuy dox la ñuy wax parce que démembrement wu état la euh, moo na xaw a def négligence ba woote woote boo xamante ne maanaam nee nga am na ñu ci ñëw te bokkuñu ci waaw loolu vraiment man jaaxal na ma daal ci nu mu mën a amee daal loolu moo waral ñu ne léegi nañu def présentation ku nekk ku nekk présenté wu après ñu ne dina am ñu génn kii na génn kii na génn kii na génn kii na génn waaw léegi nag ñii bi ñu waxee ñii na génn ñii nañu ñii nañu génn ñu boole ma ci ñooñu man nag ma génn ma euh, am na fu ñu jaar sax pour ma génn mais yenn yëpp def kaa jarul waaw parce que bi ñu bi ñu waxee ne kon yow bokkuloo ci woote bi ma ne leen comment ci euh, comment naka la demee ba man bokkuma ci woote bi man de xam nga ne bu ngeen ma gis ak sama tenue de travail ma jóge ci liggéey directement xam ngeen ne man dañ maa woo te liggéey laa bàyyi ñëw wala damaa gaawantu li ma doon liggéey liggéey ko pour mën a assister parce que dañ maa woo waaw. kan moo ma woo ki ma woo mu ngi nii Abdoulaye Diop moo woo président des promoteurs de lutte sans frappe euh, association des promoteurs de lutte sans frappe membre la bokk ci bureau bokkuma ci euh, bureau bi comme ay président wala vice président wala yooyu bokkuma ci buro bi mais membre laa ci association bi ba pare nag commission bi yor wàllu contagieux ci association boobu man ma bokk ci commission boobu commission bi su ma juumul yaakaar naa quatre personnes lañ man ma bokk ci commission contagieuse boobu waaw ma ne leen nag euh, Abdoulaye Diop bi muy woote ci fan la sukkandiku be woo ma Abdoulaye Diop leeral am na lu mu leeral am na lu mu jot leeral foofu nee na dañ ko woo moom ak yeneen quatre personnes mu war a nekk cinq te ñun ëpp ñu cinq quatre personnes lañ ko waxoon ak moom mu nekk cinq te moom ñëw na ak quatre personnes ak moom mu nekk cinq. Euh, deuxièmement bu nekkee ci wàllu promoteur muy Biraseen muy Njame nga xamante ne moom moo fi nekkal euh, ministère ci wàllu administration na set critère boo xamante ne moom la promoteur remplir te Ousmane Ndour ko amul. man maa ngi bokk ci association des promoteurs depuis 2006 2007 boobu Thomas moo nekkoon président bi ba noonu association bi di euh, mel ni lu xaw a tas daal. man mii bokk naa ci ñi ñi njëkk a génnee xalaat ne association des promoteurs de lutte sans frappe dañ ko war a suqaliwaat man bokk naa ci ñi ko njëkk a xalaat maanaam bu nekkee cinq wala dix personnes bokk naa ci dix personnes yooyu. léegi nag biñ ko suqaliwaatee ba defa ba defaat assemblée général ba ñu toog def assemblée générale Abdoulaye Diop nekk président Mamadou mi nga nekk premier vice président maam Diarra nekk deuxième vice président. yaa sent Sarr doomu Pa Ambroise moom mooy secrétaire euh, waali Diouf bu Mamadou Diouf moo nekk adjoint wu secrétaire bi léegi euh, manga boobu ci boppam moo nekk trésorier pourtant manga boobu bi ñuy fal bureau bi moom nee na ma carrément yow ban poste nga war a jël ban poste nga bëgg ci lii ma ne ko man dama am responsabilité ci association des des amateurs fii du ma fi gàddu beneen responsabilité du ma fi du ma du ma fi jël post parce que man kese nekkuma fi nan ci jël poste yi daal ñi nga xamante ne ay promoteur lañu comme ñun. moom mu ne ma carrément yow kan moo la gën doon promoteur ba ma la xamee ak léegi au moins teg nga lamb six fois lii ma nga moom ma ko wax jour boobu te pourtant bokk na ci ñuy appuyer pour man mii pour ma génn ndax man moom ma nga ndax man du ma promoteur bokk na ci ñuy appuyer pour man ma génn ndax man nekkuma promoteur te. contradiction am na foofu. waaw non xam nga Boucar gis nga pexe bu jubul rek noonu la mën a demee du ngeen mën a wax benn mbir mukk man maa la assuré ne ba ñuy def nomination bureau boobu nee na ma yow nit ñaa ngi jël ay responsabilité ngay noppi ma ne ko duma fi jël responsabilité dama am responsabilité ci association des amateurs. mais nag lii damaa bëgg mu dox parce que association dafa war a taxaw fii ñu gu ñu gu ñu gunge ñu gunge promoteur yi ñun ñëpp ñu gunge wante. mu mel ni maanaam tamit am na déception bu am côté Matar parce que keroog dégg naa la mhm. nga ne ministre bi ñuy waaj a remaniement bi mhm. nga ne bu ñu naree changé ministre des sports yàlla na mel ni Matar Ba Matar Ba ñëw tamit maanaam tey def loo xamante ni tey. xam nga Matar Ba euh, li ko dal dal na kilifa yu bari mais nag dafa war a jàng histoire euh, yonante yàlla Souleymane ak hudhud picc boobu ñuy wax hudhud u séeréer séeréer la ne a sikiroob gis nga kilifa bu nekk. war ngaa jàng histoire boobu histoire boobu boo ko boo ko defee doo gaawantu def ci nit après nga rëccu ko xam nga lan moo tax euh, nit même bu juumee da nga koy reconnaître nu mu mel xam nga lan moo tax njuum te mataar ba gën a garaaw dafa def loo xamante ne du jikkoom gis nga man Boucar du ma wax fii lii tey suba ma wax leneen ci yow déedéet lépp lu ma xës a wax ci yow dama koy assumer ba fa muy yem li tax njuum te mataar ba gën a garaaw dafa def lu dul jikkoom man autorité yi ma xam ñëpp Matar Ba mu amul ku gën a disponible Matar Ba yaa ngi dégg amul ku gën a disponible amul ku gën a ouvert mais nag nit ñi dañ koy mettre en mal parce que dañ koy conseiller loo xamante ne amut. te en tant que kilifa deful recherche ba ci fond ba ba xam lan moo am ak lan moo amul parce que erreur bi mu ngi commencé te ba muy def consultation ci wàllu làmb pour li muy ba muy renouveler CNG bi foofu la ñu njëkk a defee erreur. teguwul waaw teguwul kenn ci wàllu. wowul kenn ci wàllu lutte simple gis nga képp kuy wax dangay jéem a rek te dañoo xam ne dañoo dem ba ñu ne suba ñu publier suba ginnaaw suba ñu publier lu ñuy jot a liggéey ba pare ah maanaam 24 heures avant ci la ñuy soog a woo waa arène adressé ngor te pourtant ñun ba ñuy def suñu deuxième sortie bi laaj na Pangosé mu jour boobu mu ne kenn woowuñu ay côté 14 heures or que jour boobu la ñu profité wu noonu woo leen mais arène adressé ngor mënul représenté lutte sans frappe parce que lutte sans dafa am ay promoteur am ay amateur am association bu géré géew bi nga xamante ne mooy géewu arène adressé ngor maanaam étiquette bu am ci lutte sans frappe lutte avec frappe am na ci lutte sans frappe mais ñaata étiquette la ñu woo ci lutte avec frappe te étiquette bu am fii rek am na fale seulement gis nga nit ñi mu nekk discrimination te gis nga lii dama koy gis nga man discrimination ku koy caaxaane rek da ngaa xamul lan la discrimination ku koy caaxaane gis nga door doom laq doom wala jël ay nit gënalante leen te gënante tewuñu parce que nag non loo loo xalaat rek mën na ko indi. loo xalaat rek mën na ko indi euh, bien vrai que moom suñu côté moom euh, dégg naa grand Zoss mu koy wax sànq sax mu ne yaru dafa baax mais autorités yi damaa yaakaar ne xamuñu nit ku yaru. dégg naa Zoss di ko wax léegi bi ñu koy interview te mu nekk parole bu am importance seulement gis nga ñun dañoo bëgg lamb ba bëgguñu lu koy yàq pour ñu revenir ci li ñu doon wax rek Boucar damaa bëgg ba fa muy yem muy Birasène muy Ndiame Diop muy Manga 2 nañu génn benn critère boo xamante ne promoteur de liste sans farab am na ko te man amuma ko kon promoteur de liste sans farab du am. kon dañu def lu leen ne. dañu def lu leen ne parce que sama présence dafa am ñu mu arrangé wul. dafa am maanaam lu ñu lu ñu def lu ñu nëbb loo xam bokk. Euh, mën na am man xam man Boucar euh, car allah nag nekkul nekkul ne maanaam naw sama bopp mais gis nga ci wàllu milieu wu làmb xam naa ci lu bari loo xamante nit ñi baru xamuñu nit ñi baru xamuñu ko nit ñi baru xamuñu ko gis nga Bira nag na moytu balaa li dal Matar Ba di ko dal gis nga ma xam nga Matar Ba moom duma ko du ma ko sik du ma soppi sama première parole ci moom parce que Matar Ba ñun association des amateurs Matar Ba na xool suñu association des amateurs li mu def ci pose pierre u national amul association bu ko def ci làmb li mu def ci inauguration ba amul association bu ko def drapeau chef bu nekkul woon ñun amateur jour jour boobu dafa waroon a mooy jour bi ñu waxee ne ni ñuy defaree ni ñuy defaree ñaari géew yi baaxul ñeenti camion gu suuf suñu benn association rek moo ko mën a walbati ñetti yoon ci biir une temps amul ku ko mën Abdou Badji directeur technique national instant boobu dafa taxaw mu ne Alioune Sarr lii ma gis fii ban aso ban ban kuréel moo ko mën ci wàllu lamb mu ne amul parce que amul amul kuréel bu nekk ci wàllu lamb am pop am am peuple bi mais buñ ko am nañ ko ba pare te ñoom nangu nañ ko mu ne nu jour boobu yéen a ngi def li leen war mais nag xaar leen li ñu war ci li ñu war ci yéen ñu def ko. ñoom defuñ daal li war waaw Alioune Sarr nag moom euh, ci yu ndaw ndaw ndaw doonoon na def nag par yenn saay li ko war ci ñun moom parce que fu ñu dajee drapeau chef de l'État mu ne yéen seen association. kenn mënu leen car macha allah dañoo bari ba kenn mënu leen a defal ay badge wala kenn mënu leen a jox ay invitation waaye képp ku bokk gaa yi ne nañu képp ku bokk ci seen association xam nga turam ak santam yor nga numéro téléphone am képp ku ci bokk rek yow na nga nekk laisser passer pour moom. parce que liggéey ngeen lu fi ko fi jar nag saa bu ñu defee sorti rek demay toog ak moom waxtaan ak moom am nu ñuy defee waaw loolu moom dinaa ko ko reconnaître mais Matar Ba une fois de plus na gëstu ba gis nga kilifa euh, na xoolaat doxalinam gis nga nit ku ñuul dafa xamul rôle njiit gis nga boo jiitewee ay nit. bugg a nekk seen pataron rek yaa ngi juum gis nga boo jiitewee ay nit dangay nekk seen surga foofu la nit ñi di juume gis nga Omar ibnul Xataab bi mu nekkee ci xilaafa bi nit ñi dañu doon nelew mu jóg di wër ci biir dëkk bi bu degee xale buy jooy sax mu dem ya wax yaayam ne lu muy jooy yaa ngi dégg moom dafa doon wax ni lu ko jëlee Madina ba Cham Syrie Syrie maanaam fi ñu koy wax léegi li ko jëlee Madina ba Cham mu ne kamb bu nekk ci yoon sax bu ci fax fas faqastaloo ba deretam tuuru ci suuf rek wala mu wala benn ya xam foq rek mu ne responsabilité boobu dañ ma koy laaj yoomal qiyaam gis nga nekk responsabilité nit sax warul ñaan nit sax warul ñaan di ko nekk. heureusement gis nga suñu njiit yi xamuñu ko. moo tax sérieux problème lañ ciy jëlee nañu def très attention gis nga nit ñi nag surtout askanu làmb Bukar saa boo jógee da ngay bëgg buñ la defee loo xamante ne sax boo réagiré mën nga yàqe lu bari ci wàllu lamb sax mu jaral la nga muñ ko pour lamb jag Boucar imaginel association des promoteurs ci drapeau chef de l'état wu Kaffrine dañoo toog réunion ak waa CNG ñu ne de ñun dañoo bugg a dem en masse parce que dafa am raison yu sori yoo. Euh, nit ñi euh, dafa am lu ñu bugg te loolu mënul ànd gis nga yor costume ak karawaat ak fooy balance ak sabik toog ci biiro bi bind ne ne nit ñi defi lii. non mënul yor lamb lamb bu lamb soxlawul loolu xam nga lamb lu mu soxla lamb xam nga lu mu soxla ki koy dund la soxla ki koy dund sur le terrain nga woo ko mu ñëw nga ne ko loo gis mu ne la lii ak lii ak nga téye ci loolu boo amul jotu dem nit ki bu demee ba ñëw nga laaj ko yow amul argument yoo mënut a joxe ci wàllu làmb lu bëri sax journaliste bu mel ni Abou amul argument yu mu mënul a joxe ci làmb par exemple ay ñoomin ay genre Dembélé gis naa Boubacar bi nekkoon suñu làmb gis naa ko muy def ay émission gis nga borom borom émission boobu xam na bu baax li muy def seulement gis nga nit ñi ñoo dul jox nit li mu moom gis nga làmb du problème mu costume ak karawaat problème mu dund la gis nga làmb euh, a toq lango a toqo bukar o buga nga roxo ndo yel fu bugu upir wiin we nax yi roxoo xoofu xoofu naxa. maa ngi lay jaajëfal waxtaan bi dinañ ko dinañ ko yëgali. waaw <laughs> incha allah waaw merci.